kum dellu si naa ak euh, Ndiaga Samb hmm. semaine dernière bi ñuy tàggoo dama leen xajul ci benn émission hmm. dañuy àggale maag moom ci bërëb bi la ñu defee suite bi hmm. tout suite joni joni lañ ko def tout suite ma ni ko jaga toggal ñu def deuxième émission bi nga xam ni day jëm euh, semaine prochaine ci suite bi keroog ñu daaneele ci mbër yu mag yi ñi nga xam ne dañ leen daan dégg dana ci dellu dellu si tout à euh, ñi nga xamee ni dem nañ fi ba Euh, ñu leen di waxtaanee ba léegi depuis Alassane Ndiaye Alou. parce que Alou fut un très grand reporter ci wàllu lamb. Mm-hmm. waaw mm-hmm. am na ci ah, Alou daan na jógee football ba. Mm-hmm. lamb ji di ko nekk daan na jógee football ba rendre antenne bi daw ca lamb ja. continuer reportage bi surtout ñoom Adama Diakhaté. effectivement ak ñoom El Hadj Mada Seck. effectivement ah, ci reportage bi. Euh, loolu daf may indi ma ubbee waxtaan wi tey. yan arène moo amoon jamono ci ci Sénégal ci je commence par Dakar arène yi parce que ba lutte bi dafa xaw régional mhm. c'est très rare ñu génn grand combat à Dakar très rare mhm. kon ba léegi arène yi fi amoon mhm. yi nga biir Dakar ñu soog a génn seet yi am ci biti parce que wax nañu keroog yu ndar yi sëkku buur ak bayal bayalu te njigéen ba ah, yan arène amoon à l'époque à Dakar ma mag leen mooy arène nekkoon ci crédit foncier ci gannaaw kër moo Modou Moustapha Mbacké booba góor gi Jibi Diop moo fa daan tëgg làmb ak Yaxya Diop sama papa ak góor gi Maxari Thiam nekkoon un bijoutier bu amoon mbaaram ci buntu làmb ji. Mm, Maxari Thiam Maxari nañ ko arène tudde mooy Baye Pape Thiam sama mag. waaw yàlla ko yàlla yërëm. mu ngi dëkkoon rue Gramo angle mag Blanchot. arène sénégalaise nekk foofu ay at. foofu foofu laa seetaane. Mm-hmm. béré 15 mu ngi dëkkoon Mbomboy dans la région de Thiès. Mhm. arène sénégalaise boobu moom lañu fi jëlee di ko indi arène sénégalaise ci Fass. ci mais avant muy dem arène sénégalaise ci Fass am na arène Mëxëri Thiam. Mhm. ci même endroit bi. Mhm. ñee nañ ko yóbbu Fass. ñu ne am na arène Mëdun Xule. daa doon Madoune Khoule. kan moo doon Madoune mbër mu mag la woon boo xam ne dafa guddoon rëy amoon doole kon la xare woon daan la. Mhm. benn bëre la mos a bëre fàtte naa ki ko daan mais dafa bëreeg moom di ko dóor kurpeñ bi dem ba jaayu baraam bi laal suuf bi mu sigee mën a daan na ma ndax mosuma dóor ku taxaw. ba <laughs> dañ daan jël dañ daan ndox. Ah. sal ko ndox ba mu fees mu dóor ci kurpeñ. mu bënn. dégg naa loolu. barigo bi fëq waaw barigo xam nga yaa ngi dégg maam góor gi di wax ci sàngalaan naan Modou Lo bàyyi ngumbaan xulle. waaw saajo ak saanoor ëpp mbër. Mhm. Modou xulle ak saanoor ak jéeri Sadio ñi ñett ñoo bokk génération. dañu ëppoon ay mbër parce que dañu nekkoon ñu guddoon ci kaw amoon doole amoon force de frappe. Mhm. tuddee nañ ko fi làmb. waaw mu ngi nekkoon fii école Ahmed Sy Malick nekk ci avenue Clémenceau. avenue Clémenceau. vieux Kantara Koulibaly yal na ko yàlla yërëm. Mhm. bàyyi kul Koulibaly instituteur suma morom. moo moo bon làmba jooju. Mhm. donc arène sénégalaise joge ci crédit foncier. arène sénégalaise ñëw ci Fass ci gannaaw cinéma star. El mhm. Hadj Mbaye Samba Mandela moo moom suuf si moo fi doon tëgg làmb ak góor gi Jibi Diop. ak Alé Diène bi nekkoon rëbës. ak Papa Diakha Diop bi ci gël tàppe waaw donc arène sénégalaise Dakar mu xat ñu indi ko fas Fass arène mënul xule nekk fi ci ci ci ci fi fi ma la wax sànq Ahmed Sy Malick hmm. nga dem guyu Nimzaat fi tukulóor def seen njàkk tey waaw mu amoon làmb mu toon arène Babacar Thiaw Babacar Thiaw Babacar Thiaw arène boobu fa la ku ñuy wax Lamine Ngom magu Moussa Diambi Ngom hmm. bëre ak Zazu Ñang bu yeen hmm. chauffeuru taxi bëri ba metti mm-hmm. lamba jooju booy bambara mooy jël drapeau ba mm-hmm. boo déggee booy naan maa jël arène gabar ndoy drapeau am jël arène sénégalais jël arène Babacar Thiaw may borom ñetti drapeau yi mm-hmm. kenn mësu ko jël ci moom arène yi jeex na léegi arène yi jeex na fii ci Dakar ñetti ñoo fi amoon am na am benn benn bu sama xel nekkoon ma yaakaar di nga ci yegg si uh-huh. fii salle de vente nekk léegi ci avenue avenue Blaise avenue avenue ah, Lamine Gueye. Gambetta waaw mooy mooy di Lamine Gueye léegi. Lamine Gueye foofu mooy domaine bi. andiwaatal sa loxo. <laughs> Samb yow neex ngaa jàngal. fi mu nekk tey. ci gannaaw mur bi nga xam ne Mor Ndiaye Pakola Mbaye moo fi nekk ñu fiy jaay bant yi. Mhm. foofu moo nekkoon domaine bi. dañu fi daan bëri mbapat par samedi ak dimanche. Mhm. foofu la ku ñuy wax Kolindooy. Kolindooy. mu nga dëkk Mbour Tefes. maa ngi nuyu suma mbokki Mbour yi yow passage ñoom Babou Ba góor gi Badou Ndoy ñu nga Mbour Tefes. oui ñoo lay gën a xool sa émission bi di ci waxtaan régulièrement jërëjëf su Koli moog su leen doy ñoo bokk ndeex bay Koli jóge Mbour ñooy Ndakaar doon ngi tëgg mbapat bu Ndakaar tëggaan mbapat ñëppay ñëw bi ñu ñëwee Bédési Koli. ub lamba ji nar dem Pape Madou Ndoye Gueye jëkkër yaa Fatou ndoy góor sondul mu ngi dëkkoon avenue Jean Jaurès moo ne déet kii daan ñëpp nar dem duma ko fekki mhm. daal di sumi xaftaan bi daal di ko dénkaane wàcc ci géew bi daal ko dékk loxo mu ne ko demal ngemb mu ne ko jaru ko wax tànki tubéyam bëre koli daan ko bi koli ndoy ñibbee mbuur ma ne in daan dama Ndakaaru de nga kala daal mën daal kii ma daan daal am punkal la maa xamee ne mu gëtt fooga sa Ndakaaru la ñu fa mu dëkk si Ndakaaru mu ne fa mu dëkk rek Ndakaaru la le samedi suivant su lay ndooy jóge Mbuur ànd ak moom ñëw ñëw ñu ne kuli ana waa ji mu ne gisuma ko ci làng gi làmb ji dox di dox di dox kuli xool tribune bi di xool ba yàgg mu seen pap pap bàyyi mu du ndooy géey mu ne su lay ndooy këlee ma daan su lay ndooy jël ndënd mi ñëw jàkkaarloog Baye Modou Ndoye nekk yaa ma tax a jógee Mbour wàccal <laughs> waay ñu téye Baye Modou ne ko doo wàcc mu mu dafay wàcc daal magam kay da koy ful na naa wàcc bi mu wàccee jàkkaarloo ak ak ak ak su lay daal di jóg comme coow li bari mhm. vie Abdoulaye Ndoye Gom waaw moo ne lii daan la ñu ne su lay Ndoye mooy bëri kii ñu ne kii kan la su lay ñu mooy bëri ak kii mu ne kii kan la mu ne su ma ne Madou ndooy Guèye su leen doy su leen doy fa dëkk yow ma nekk ko Mbour laa bàyyi ko mu nekk ko du la fi andi ma ne kolimi coli lañ daal moom laay farlu si ma di ko xool ba yàgg ma yow su lay Ndoye lébu Mbour Ndoye yow dëkkoo Mbour Dakar nga dëkk du ngeen bëri ñu wax wax su lay bàyyi gom ne su lay du bëri ak Pape Madou Ndoye Guèye su lay Ndoye ñaañ jagb lañu ci la ñu décroché su lay Ndoye andi ko muy ngemboo Dakar ba mu yan Abdourahmane Ndiaye Falang te bi mu daanee Falang am na histoire dafa daan Falang le dimanche suivant ñu war a décorer Abdourahmane Ndiaye Falang ba ba papa yi moo ko tëggal mhm. papa Yaxya ne ruus naa falan maa andi ko Ndakaaru mu bëri ñu daan ko décoration bi am ma di ko jox su looy ndoy suma rakk di bàyyi Falang dellu si nga ci Falang waaw da daan bërëy daan xam nga Falang ci lébu mooy jalax. mooy jalax faxasal dégagel. waaw mu ne loo falan falang du ma tee ñëw. daf koy bàkkoo da koy bàkkoo. loo falang falang loo falang falang du ma tee ñëw. waaw loolu moo waral tulu bi. ñu wax nag mu bëri mu bëri Pape Souleye Ndoye Baye Souleye daan ko. dimanche ba yàq yi jël décoration ba jox falang mag ñu mere ko. daal di defar beneen décoration booba décoration bi day nekk trois pièces baraaya ak ab drapeau. loolu dellu si ak ak ak ak ak ak daalu malaakis ak casque wan-wan. <laughs> loolu dellu si su lay nuyu ngemboo ci dem. Ah. sëriñ bu tëggal ko. Ah. moo tax c'est pas un hasard xale yi tëggal làmb ji tey jii. Hmm. seen papa pap sek mën ànd ak su lay mën mën a ànd ak sëriñ Mboup. xale yi tëgg làmb ji xale yi tëgg actuellement nii. sen seen papa ma doon ànd ak ma doon ànd ak sëriñ Mboup. sëriñ Mboup en 1950 50 50 moo doon tëgg ma tëggal. war nga ma benn photo. Mhm. Ahmed Dieng waaw. Vieux Seng Faye. waaw papay yàgg na ànd ak ah. def ci judo. biram gay biram gay seek moo jur seng-seng moo jur maamam ma jur baayam mhm. vieux Macheikh Fatma Ndiaye bay géwéli Ndakaaru ku nekk sëriñ Ndakaaru fii ci Ndakaaru Macheikh moo lay jiit ndax seen maam ma Ndiaye pen la moo àndoon ak euh, jal ci xale bi ci Pikine Dut Ndiaye Rose. mu ngi bàyyeekoo ndar ñëw ànd ak mag ñi mu yàlla dimbale ko ba mu xam lu kenn xamul. mbay Guèye Ndiaye nekkoon ngéwél daan toog teeru bay suugi yor gaalam di nappi nga xam ne vieux seng ak laama bu naa baas. laama bu ñetti ji bi daan tëggal falan. bu naa baas bàyyi moo ko daan tëggal. ah bu naa baas bàyyi bu naa baas. waaw bàyyi bu naa so waaw Baye ne ko bu yàggee neex Baye Bouna Abbas moo jur Lama. waaw vieux Daouda Faye moo jur vieux Seng. Eh, mbay euh, naka la tuddati euh, Macheikh Fatma Ndiaye. waaw Fatma Ndiaye yaa daan woy papam Macheikh Mbay Macheikh Fatma Ndiaye. Eh, eh. Daouda Mbaye baayam ak euh, Daouda Faye bàyyi vieux Seng. ak Bouna Abbas bàyyi Bouna Abbas ñii ñoo daan nag benn chance la ñu am. su ma ñibbee Yoff damay falu jaraaf ñaar yoon. soo ñibbee Yoff. damay falu jaraaf. ñaari yoon waaw. doon daman fii ci sumba jun. Mm-hmm. doon na Ndumba Jeele ak Ndéla Jeele ak Jeele yaay ma ci giir ñi nga xam ne damay ànd ak bu ma xamul. géwél bu ma àndal bokk ak yow géwél dina xam ku la jur ak foo dëkk. Mm-hmm. loolu tax ma xam gaañ yi. xam nga jamono bi dafa naqari. wax nga dëgg maam góor gi daan taamu géwél bu ko tëggal. mbay gee da ko daan taamu. Robert da ko daan taamu ba ci Manga da ko daan taamu ak ñi fi nekk léegi nii. Mhm. c'est que nag fekkente ne nag. Tyson day taamu day taamu. parce que fekkente ne yow ki nga àndal. boo xam ne moo ko soo ko déggee rek nga xam ne c'est lui. générique la moom rek la du fi ñaar. Mhm. du fi ñaar donc gis nga làmb yi arène sénégalaise ci biir Dakar moo ñëw Fass ak arène Medoune Khoule bi nekk fii. Mhm. ak arène Babacar Thiaw. waaw arène Sambay Sall mu nga woon Caaroy Géej. arène Gabar Ndoy mu nga woon Tëngéej Kër Suuf. Gabar Ndoy Gabar Ndoy nga woon te nga jàkkaarloo kër suuf donc ci région bi ci Cap-Vert yooyu làmb ñoo fi nekkoon ba pare njaga à hmm. l'époque tëgg làmb gënoon yokk ba évidemment hmm. booba temps loolu lañu marcel hmm. daan nga gis mbër mu bëree samedi ak ëllëg dimanche waaw bara bara bara bara turu séeréer la barok teen ça veut dire en séeréer bul ko laal bul ko laal bàyyi waaw baax na mais bul ko laal de. Mm-hmm. dañ naan bul ko laal. dafa xaw mel ne ku naan bakk fi. finalement ñu ne bara bara. bara bara bara bara bara la bara bara mu ngi dëkk mu ngi dëkk ci dëkk bu ñuy wax euh, Wàkk Nguna. dans le départ dans le département de Nioro. xam naa ko arrondissement arrondissement Ndofane. waaw après ba wàccee Pont Noir boo ñëwee ba Thiawane rek nga continuer. oui oui Rombo Koutal Kawil Kër Socé Lamaram ak Mboma ak Thiarène j'ai enseigné là-bas en 61. ah jàngale jàngale naa foofu. <laughs> gis nga bara bara. dafa ñëw dakaar day bëri samedi arène Gabar Ndoye Tëngéej bëri dimanche Dakar wala mu bëri samedi arène Sambay Sall Diaroy bëri dimanche Dakar. waaw Fallaye daan na ko def Bara Bara également daan na ko def booba làmb ji daan jóge rek la woon c'est pas si compliqué que ça. Mm-hmm. c'est que nit ñi nag contrairement à Fodé Doussouba qu'ils veulent diaboliser. waaw Fodé musul bëri samedi ak dimanche. waaw bañ. da daan bañ day lay bëri te itam daawul dóor. ñaan dafa amoon gàllaaj ju tax dégg nga ku mu dóor nga dee c' était pas vrai également je je dis non mënul woon dóor il était lourd de poids amul détente hmm. ku dem hmm. am yaram euh, waaw mag la mu ngi dëkkoon rue 6 Njabali Fall Njabali di di supporté Gorée di ma tewes Gorée waaw Njabali <laughs> Njabali Fall dane comme comme comme Fodé jeexal na gars yi foog mu boole ma ci mbaa ma daan ko ñebali mu ngem ba mu moom du moom dafa guddoon rëy am doole iti costaud ku am doole fi force force naturelle la yoroon naar la woon mu ànd ak ñoom Ndariya Fall benn bi benn bi fi bi bi bi fi bal ak ñoom ak ak ñoom Lamine Diack. waaw ci ci foyer moom la ñu boole ñu ànd ñu ñu ñëw ci làmb ji fo fo de daan ko. la mu am ci réew mi. Ah, c'est que léegi nag fu nekkal waaye di génn cees am na làmb léegi ma ne c'est bien boo demee Kaolack. plus précisément à Kasnak ci sorti Kasnak. waaw arène ah, Manga Diouf a nga foon. Manga ah, bi ñu tuddee Manga bi. dëkkul Sine Méridional mu nga dëkkoon biir Sine. il s' appelait Manga Diouf. sa ah, Manga laa il s' appelle Yacine Ndiaye. waaw sa bi mel ni bu ko waroon. voilà effectivement mu ngi noonu. mu ngi noonu mu ngi noonu moom la. Euh, gis ngeen de Ndiaga Samb. daal foofu. làmb di dox yaa ngi seetaan làmb tey euh, du dootuma dem géew nag dinaa ko xool ci rajo bi rek parce que làmb amatul. li nga gis moo tax nga doyal. ma gis moo loo xam ne soo ko parce que li ma gis mooy mbër tuusatul mbër tëbalatul dañuy indi chorégraphie ci làmb Fass dina tuusal Caaroy Géej dina tuus Modou Lo dina tuus Balla Gaye dina tuus. waalo waalo yëpp a ngi tuus mais ñi ci des ñëpp du ñu tuus ci ci bi mooy njëriñ. combat bi mooy entrée en matière da ngay daw nga tuus ñu xool ba xam ndax yow mi tuus. yaa ngi ci état yaa ngi ci état wala déet. di nga tuus un amateur toog ci kaw xool gis nga tuus bu teg ngay teg mu tëbal nga salar ñëkku tës bin fecc bitar ñëkku mu xool ne sawaay mi jàpp ne forme sëriñ jàpp ko. Uh-huh. mais waaw léegi parce que dañ lay passé visite. a lay passé visite à distance ñi la xam ñoo lay xool rek naa ah, tuus na de tuus mi neex na de ñax na sëriñ jàpp ko de tëbal na jàpp na état ba am naa ci moom confiance. parce que làmb ji ñi naan sama mbëree daan sama mbëree daan ba dem ba di ci teg ci biir làmb ji ci amateur loolu da yàq làmb. modernité mi ngi door dégg naa ci Ousmane Ndir mbër la woon. waaw ba pare di champion Baye Ousmane Ndir 1943 44 44 45 nekk na ko fii deux fois champion d'AOF. natation natation Dakar Gorée teeru Baye Sogi Gorée aller retour. dafa daan traversé. traversé mook mook soldats yi ak civils yi ñu dem teer sóobuwaat dellusiwaat mu raw. Ousmane Ndir Ousmane bu yof def na ko ñaari at 43 44 44 45 biñ ko libéré compétition bi am armée française jóge tugal ñëw ci compétition yi ñu def. Euh, émargement xool ba xam ñi teew bi ñu gis leen di ñu ne bon ooy ooy leen ndiir laa ñu ne dafa libéré ñoo nañ ko dem jëli yof lañ ko fekk ci pencum dëngaañ. waaw ñu nekk nee ñu nga ñëw mu ne lu xew ñu ne dañ la nga dellu ma ñëw ne lu ngeen may doyee ñu da da ngay rengager on t'engage à reprendre service dans l'armée uniquement pour dem compétir yi Dakar Gorée après ñibbi si waat <laughs> te Ousmane lii def na ko fi. su ma mag. sa mag suñu wëlëre Youssou Dieng rahmatulahi alayhi. fàttali nga ma ko. football na wees dara xaw naa ko fàtte xam nga pourquoi. Youssou déglu seen. ay mag yi nekkoon Gorée. waay man amoon naa licence Gorée mm-hmm. suñu mag yi nekkoon Gorée nee nañu. Mm-hmm. Youssou mi ngeen di admirer ci làmb ji. Mm-hmm. la gën a mën làmb. bu baax waaye daal mënul yàgg ci tànk bi. déedéet. bañ bañ daal ci tànk moo tax bu sànni nga dem bëri ji. nee na suñ ko mayee mu na loolu nangul su tànk bi nangul su fermé ma su ko nangu. <laughs> est-ce que mais gis nga Youssou. ah te noonu bien. day dem football lu weesu Gorée parc municipal de sport. waaw dugg ci vestiaire yi ngem bu ci biir jël sac sport am dugal ci yére yi jël blouson survêtement ñëw ci làmb ji Youssou Dieng moo jëkk andi blouson survêtement ci làmb. parce que day football gore léegi. mu jeex mu bëri day mu jeex mu bëri ji. est-ce que bi maa ne bu doon nekk mag ci mbay Guèye nekk mag ci Boy Naar Fall nekk mag ci maam góor gi di àndandoo ak ñoom dugal leen ci blouson mi ñu dem ba jamono fas gi du sol blouson. am na ku muy bàkkoo. Hmm. yaay bintandoo yi. yaayam la yaay bintandoo yaay yaayam la moo ko jur. yaay ji ceeb bi dafa neex. <laughs> ba nga xam ne ceeb bi ak maafe bi. xam nga maam góor gi comme dafa mën dafa mën a tooñ. Eh. ci la sukkandiku di tooñ géej jub naan géej juboo bëggub ceeb saabu bu jabar ji taalee mu lal basang toog bu jeexee cin mu ne texetre te saabu bu tibeeb ceeb mel ni da koy muul <laughs> est-ce que gis da xool da ngay xool lambi démb ak lambi tey kan mooy bàkku léegi amatul xam nga léegi léegi wax naa la tuus amatul waaw tëbal amatul ngemboo sër yu bare bare bare bare bëri amatul bu jëkkoon boo daanee d'une semaine à une autre ci ngay préparer bac pour mbër mi nga daan. koñ bi nga dëkkal ci la jigéen ñëpp di sawar génne ay sër pour jox la nga ngemboo ko. nga tegale sër yi ngemboo ko. daan nañu ci seen ngemb yooyu. waay fukki sër daan ci. daan na ci nekk ak ñaar bu tànk dak nga takk sa dënd sa biir ba mu dëgër nga takk sa dënd ruuf mu wàcce du bokk ñaar yi ngay téye. daal di poudre sa baat. ren maa ngay sol poudre baat. Bekaay def na ko Ousmane Ndiir def na ko Modou Diakhaté def na ko Abdourahmane Ndiaye Falang def na ko maam góor gi def na ko Modou Thiaw Mbaal def na ko Sadio Ndiaye ko ko dégg def na ko mais cette génération de lutteurs là qu'est-ce que tu vois ku ci bëree daan rek da ngay dem xotti ji deux pièces ñëw taxaw funki baabalaan ngay def mais c'est pas la lutte. góor gi fi jógee daaw oui. fi jógee daaw. waay. dafa mënoon a bàkku wala dafa daan xam nga soo dégloo bàkkoom. ah dafa safoon xorom. yal na ko yàlla oyofal suuf ci kawam yaatal bàmmeelam njuga bëri na mais bëri bu yàggul. ah bëri bu yàggul. limu mu mën li mu mën ku ko mën doo bëri lu yàgg. li bàkku la nee na maam góor gi ak Sassou Ndiaye. waaw ñoo ñu ñaay may seen directeur ñi maa leen dalal ba or dans ce que njugatun di suñ ko faram fàccee Sall Matiti Dias ak Sall Badjo ngi jaay écoutez bien ce que sal sal bàjjo mu ngi jaay ak sal matiti mu ngi jaay matiti jaas matiti jaas dawin la da ngay daw ba yàgg rek nga ne yoxeet ne jaas ci kanamu gars yi d'un coup tu surgis l'assistance ñu ne matiti nee na jaas mm-hmm. qu'est-ce qu'il vient faire kële mm-hmm. nag c'est un nommé Zal nga Saliou waaw on dit Zal ñëw kenn ki lam bu jànd moo ànd àndul ak mu taxaw ne bon Sall Badjo ngi jaay yëkkati ñaari loxo yi man kenn maa ànd ak aw ma kenn ku ma àndal maa ngi jaay. Mhm. woy woowu ak bàkk boobu foofu la génne. est-ce que Sall Badjo ngi jaay. ce que mu ne du ma jënd damay ñaan. dégg naa El Hadj Talla tamit ku amoon xorom la. Baye amoon na fëla amoon na xorom mënoon na bëre. El Hadj Talla Diagne. yegg ca kaw dégg naa kaw bi ko fi ah, yaay bi mu ci génnee. ci la ko yoffal jaraaf. ah dañ ko def jaraaf. dañ ko def moom la deewaale El Hadj Ousmane mënoon na bëre mënoon na bag xam nga biñ ko booleek bës ko ñetti dimanche booba ku ñuy wax euh, Jogay Njaay séeréer la bu dëkkoon Wakaam. kan la ñu suul Wakaam Babacar Thiaw. Babacar Thiaw bu mag ñu ngi ko suul Wakaam. Babacar bu ndaw ñu ngi ko ñu ngi ko suul fële ca ñu ngi ko suul fële ca fi mu doon liggéey mu ngi woon Taïba. waaw amoon na benn sëriñam bu dëkkoon à côté. mu wóolu leen teg moom mu ne bu dee nañ ko suul foofa moom Babacar Thiaw bu ndaw xam nga dafa def mystère. dafa bëre fii ak euh, Mbor Mbay bu jën bu Kaayaar jarbaate Abdourahmane Ndiaye Falang daan ko le dimanche suivant en mille 1963 mu ñëw Kaolack Mbay ji dëkk ko ñu bëre Kaolack mu daan ko dimanche ba ca topp mu dem di bàkku Kaolack Mbay Gueye Ndiaye ñëw di ko dëkk ak insistance mu ne ko du ma jeexal jendeer Falang di fi gemb ndax mook samay bàyyi la woon qu'est-ce qu'il daan naa mboor mbay jandeer daan naa mbay waaw mbay daan naa mbay ja jandeer mboor mbay jandeer ñooñu ñaar ma daan yow mbay gay njaay soo ñëwee ba man su ma la daanee falang moo ne Abdou Mbaye ay Tine tas nga réew mi moo dajum réew ku si danay falang mbay gay njaay yow boo donnee falang falang wax li mu wax ma daan mboor mbay daan mbay ja bu ma la daanee falang ngem waat te Falak nag comme moog sama ñam papa ñoo bokkoon génération. doo bëri ak yow daal ko bàyyi. dañ dañ daan eh, gis nga maa ngi naan tout à l'heure xajoo ci ñaar mais xajoo sax ci ñetti émission. <laughs> nañ dem parce que xam nga rek jaga nga pourquoi. waaye. <laughs> Eh, waxtaan wi bu tollee fii. Mhm. su ci Basirou Diagne. Mhm. Mariam Diop duggul. Mhm. ñu ñaar ñëpp. waaw lu wàññeeku. rahmatullahi alayhi. am na am na koo xam ne dama gis nga tribune des sports lamb ji. Mhm. ca RTS. waaw Basirou Diagne ka daan présenté. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. Basirou Diagne moo jël émission bi. waaw jox ko Tafa Ndiaye. Tafa Ndiaye waay. Basirou Diagne moo mhm. jëkk jëlee lamb ci arène yu ndaw yi. Mhm. parce que boobu temps arène yi nga lim. bu fa lamb xajul dañ koy yóbbu parc des sports. parc des sports mooy fi BHS nekk tey. ci waay champ de course champ mais Basirou moo yóbbu. Mbaye Guèye Robert Double Less. Double Less ak Robert. te ba jóg. effectivement. kon bu ñu waxtaanee. Mhm. wu toll nii. Mhm. ak ñi ci feeñ ñëpp. Mhm. Bas ñeme ñu ma ñeme ñu ko bay ñu tudd. parce que parce que suma mag la. <laughs> Bas suma mag la Bas yàlla moo def. prend bonne note. Yaxya Diop moo tëgg làmb ci Ndakaaru Jibi Diop. Alé Diène ma xëri Thiam. Alcantara Abdou Karim Dia bàyyi njëga ja après ci la ci xale yi duggee. bi bi ñu jeexee kenn tëggu làmb Basirou Diagne ne maa ngi ci biir géew bi tëgg làmb mhm. bi bas tëggee làmb làmb jaxat ci saat yi ñu dem Demba Diop. 72 72. Alsane Sarr bi nekk tey président commission d' organisation collectivité Lébu. moo ko arbitré. Demba Diop. alaaj diggante Mbaye Gueye. waaw Robert diggante Mbaye Gueye Robert la. Mbaye Gueye Robert diggante Mbaye Gueye Robert les évolué après. foofu basa ko fi yóbbu jox ko ampleur bu mu amul Ablaye Fofana jàppale ko yàlla na ko yàlla yërëm oyofal ah, suuf ci kawam Ablaye Fofana mm. bàyyi machib bi nga bokkoon RTS. Ablaye Fofana taam laa bokkal classe en 1949 ñu duggoon école. Oulimata Ba moo ñu jàngal. yow Lamine Diack di sa xaritu xale la Lamine Diack football. def athlétisme. waay defoo ci benn loolu ñëwee. ni mu ni mu nekk dafa yomb. Ah. bi Lamine ndi football. booba maa ngi dem ci champ de course di fa jaay orange ci kungu. ndeysaan bu ma jaay see kungu orange benn orange dërëm bi gars yi jaay cent franc tey. waaw bu ma ko defaan ci kungu di ko jënd ci syndicat fi Grande Mosquée nekk léegi. Ah. di ko jaay ci biir stade bi mag xale yi. Lamine di football five francs Sénégal. ma xool ko ku mel ni Lamine Diack ku ni Dartagnan bi fi des yàlla na yàlla guddal fanam mu ngi mu ngi dund Nabi Souma Chimling Pagaye Sow Cheikh Tidiane Sow Petit Tall ak Abdou Karim Tall su ma mag suñuy kilifa ñun ñëpp yàlla na yàlla guddal fanam Euh, Charles Wade. mu ngi ci kër gi jàpp jàmburam. xam nga ñun dañu ñëw xool vert blanc ñu ne bon attention ñun dañu jàng école arabe comme école arabe drapeau bi ñu yore vert blanc la. Mhm. man foyer lay supporter. ndax mooy couleur lu islam ma topp ko xool jàkk ma gis ci Bonaou Sport un journal d'antan ti t'en souviens mhm. ñu bind ci Lamine Diack le Léon Jolia du Sénégal. le meilleur demi de toute la WEF. démb dafa toog sama kër. di déglu Macky Sall. waaw mu wax lu nga xamee ni dama ni. Mm. eh mm. Mm-hmm. kii Lamine Diack fa mu nekk ca France. su ko déggee dana kontaan. xaritam Ndiaga Samb dana kontaan. waay Macky dafay defaraat. Mm. Assane Diouf. c'est un combat gagné a priori. nee na daf ba mu mel na que nii neex mag ñi ba mu mel na que Assane Diouf bi ñu ko tuddee. mi nekk champion d'Europe de boxe. ba mu mel naka Lamine Diack mi nekk champion de France d'athlétisme tey def de Assane Diouf mhm. son joyau biñ ne dañ mhm. ah xam nga foofu nañ ko sante yàlla nañ ko sante yàlla parce que san Assane Diouf moo des ci biir plateau Lamine Diack wax na ko mhm. moo des ci Médina Lamine Diack wax na ko à part Iba Mar Diop bon bu ñu demee ba li am am fi on revient pas sur l'histoire wax nga ñi ko def tentative la woon yàlla lu mu dogal rek loolu la suñu jàng dafa àgg ci wa maa yafxalal xaajil jëlil bi xalqihi fa zaaka jamilun yortadihin munibu loolu ci boo koy fii nag naan yàlla mi bind lay jaw bind ma bind caméraman preneur de son donneur de top ñii bi leen yàlla lay bind tàgguwul kenn ci ñun da nga xëy rek ñu daje naa la yéen jàmm gis nga <laughs> yéen a xale yi jàmm xam nga dajeeg sa professeur di wax ak moom dafa metti yow sama professeur <laughs> waaye déet waaye suma nag bàyyi ma yow fi mu nekk nii mu <laughs> ci sa professeur yi waay ku la ci gën a jege ci làmb ji man leen njaga sàmb waaw euh, laaj sa professeur dafa jafe mais gars yi nee nañu attention instituteurs yi ñooy bàyyi agrégé yi da ngay laaj lu la neex lu ñu xam wax instituteurs yi ñooy bàyyi professeurs yi waaw njaga loo bëgg tëjee waxtaan wi te laajuma la ñu sant yàlla sant yàlla jëkk ñaan yàlla Lamine Diack mi ci tugal ñu di ko wax. mu ñibbisee tey dina ñibbise. amiin amiin amiin. yàlla nañu ko yàlla defal. lenn laa ciy tëjee. maa wax lii tey ku ci xam lu ko ëpp na la jegeñ si pour mottali lii ma wax. ku ci xam lu ko ëpp te du nii. waaw na la jegeñte ne la grand Ndiaga jaar na fi c'est un grand chahuteur mais li mu wax am na ci loo xam ne ànduma ci nii la ak nii ak nii. Ndiaga pare nag livre bi Ndiaga pare livre. waaw tout le monde dit on va loo xam ne livre la. on va yi muy non non non bindaguñ ci ah làmb certains ont tenté de le faire en trichant. jërëjëf Diaw jërëjëf Ablaye jërëjëf yaay jërëjëf. kenn du doyal waaye yàlla baax na. yàlla baax na yàlla baax na jërëjëf Diaw jërëjëf. Euh, Ndiaga Samb. Mm. Euh, fii programme mu làmb ju tolloon. Mm. consultant la ci kër gi. Mm. ñëw na fi il y a quelques années. peut-être trois. Mm-hmm. émission bi jàll am ñu ko doon laaj. Mm-hmm. émission bi laaj Moussa Tegle ñetti yoon. Mm-hmm. rediffusion ñett. ñi naan ma courant bee coupé. ñi naan ma dimbale ma Ablaye ak sama chef. religieux. Mhm. Pape Malick Sy ci. Ah, waaw ma maa maa ngi koy ñaanal bu baax a baax. en passant de rediffusé ba Ndiaga Samb bi daf ma rëcc. ñu rediffusé moom la ñu mos a jël émission am ñetti yoon. Mhm. muy jàll di dellu si. Mhm. ñu koy laajaat. di dellusi si. ma ne nag consultant nga ci kër gi jërëjëf Ngagne Ndiagne mi ma la jox. alhamdulilah waaw alaaji Ngagne Ndiagne. waaw waaw moom mi nga xamee ni. li muy wax ci làmb ji ci biir kër gi. Uh-huh. daf ko donn. papaam dafa daan dugg ci arénu làmb di arbitré. Mm-hmm. te lu mu wax. Mm-hmm. kenn du ci teg baat. déedéet déedéet jërëjëf jërëjëf laay jërëjëf ñoo ko bokk yàlla ànd bi yàgg. incha allahu taala pareel nag la war gunge ci livre la <laughs> plume. je taille la <laughs> ci làmb ji. moom la ñu doon gànnale ci ñëwoon démb. Mm. mbokk yi ba beneen.